10 ans xaw ma 8 ans Balla Gaye ñëw daan ko 2012 daan Tapha Tine 2013 bëreeg Bombardier 2014 Bombardier daan ko Bombardier ba mu ko daanee 2014 bëreeg Modou Lo 2015 daan Modou Lo bëreeg Eumeu Sène 28 juillet 2018 Eumeu Sène daan ko 28 juillet 2018 ba mu dellu seeti 28 juillet 2009 Modou Lo daan ko boobu ba léegi nag mi ngi ci jal bi toog. nañ ko bàyyi ci jàll rek. di tëj di tëji. nañ ko fa bàyyi muy tëj di tëji rek. <laughs> ah Siteu Siteu daa bëgg a tëj de Mohamed. ah Siteu nag amul ku mën mënta tëji de. empereur. gis nga. ku bind empereur bi empereur. ku bind saa waay nee na ku bind empereur bi. nee na empereur daal. war wax ki ko bind nag. dawul dawul xare ko bind dawul xare. mais kan mooy dawul xare. dawul coow kuy dawul coow. Pega sa baaraam ma waxtaan ak mbër bi ba pare l'enfant chéri a Guédiawaye ñu ñëwaat ci champion namm naa la borom foora lay maa lay siyaar di siyaar ba toog maa lay waaw di sant aduna tey ba may jógee ba may ba may jógee sam-sam jàmm gën ak yëmbal maa yëmbal lañ maa yëpp waaw Serigne Touba maag sa ay Diop bokk fu ñu jógee ñu war ñëw wane lu leer man def naa li ma war a def daan naa incha allah rabi moom day ñëw daan ñu confirmé ñibbi incha allah rabi. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama sixième combat. ñaata victoire nga am benn défaite. benn défaite waaw. ban nga ne. écurie école de Pape Diouf. Pape Diouf waaw. lu tax nga tudde sa bopp Michael Fora. waaw Michael maak moom dañoo yàgg. waaw maanaam moo ma yar. waaw. jàngal ma ku baax xam na turam maanaam war na war na nax saay si làmb ji. non du nax saay ndax si làmb. dëgg la kon loo dañu ko war a jox jëloo njugal ma jël sama bopp dëppee ko ko. siy jàpp. ndax bi ngay bëree tàggu nga ko. ba may. bëre ndax yëglu nga. waaw yëg na ko jàpp na si bu baax a baax a baax. wax dëgg yàlla jàpp na si baax jëlal na ma ay bolok xam nga jàpp na ci bu baax a baax a baax lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén jërëjëf mais man dafa am sama sama benn yaay yoo xam ne dama koo bëgg a sant muy sama yaay Yacine mère Yacine Gueye waaw moom moom wax dëgg yàlla ba sama yaay gaañoo ba léegi moo ma jàpp comme yaay ba ma gisulee yaay gisuma papa moom laa gis damay bëgg lépp lu ma am rek incha allah rabbi bokk koog moom di sant sama gars yi xam nga jox ma ko di sant sama coach laay ak sama gars yi may bokkal entraînement ñoom Matar Camara gars yëpp su ma limee damay juum waaw mooy loolu noonu bëgg naa ngeen yàpp ngeen jàppale bu baax a baax a baax ma war a doon champion jërëjëf père Pale merci père Pale nee la jàppale Michael sama xarit la di la jëndal ay bloc waaw waaw di nga ko jëndal ñaata bloc déet déet déet bu dugagum ci affaire bloc nag affaire ah. bloc da affaire bloc leneen la ah mon père affaire da koy wax gars yi maa ngi nuyu Abdou Aziz Alé Ndiaye ak Baye Alé Ndiaye. ah Abdou Aziz ah. Al mooy la solution. aywa arbitre sifflé na diggante Caatu Medina ak Faramareen. ah ña ngay léewtoo di dem de. Caatu Medina moom moo leen wan ginnaaw noonu. ba mu fi mujjee nag. waaw. dafa daanu. dafa daanu lii mooy deuxième combat am suma ma juumul doomu ndeyu bébé Diène. ki muy bëree de dafa coŋali rek taxaw di ko. Faramareen lay bëree mbarum ñoom ñoom Umaro. borom le 9 juin. Omaro mooy borom la neuf. borom waaw yi diggante Modja ak Caatu Yoff doon na mu fay. Eh, eh, doon na ko kurpeñ de. Modja ak ak ak double moteur. ci ànd ak TDR Events. ndaw lamb ju rëy. ndaw lamb ju ñaari mbër yi. war nañoo bëre lamb ju rëy Fara Mareen na suuf. waaw. fara mareen ak caatu ndakaaru ay ca per pala waaw ñu ngi lewtoo lewtoo bu dip Diop 2 pour pañ dalagul Diop 2 def na mobilisation bu doy waar waaw Diop 2 nag dafa bokk ci xale yi xew ah. xale yi xew daf ci bokk feesal na feesal na rouge beeg zone bi de côté dafa bokk ci xale yi xew feesal na rouge beeg zone ba ma ngay songu verte ba ñi ngi raak. ah ñi ngi xeex eh, eh, door mu daan. Eh, donc wàcceeku nañ kurbe ñu méttee caatu ndakaaru. waaw sëkkatal na ko. waaw ah, da koo sikki mu rek. bàyyiwu ko benn yoon. sëkkatal na ko. da koo sikki mu rek da koo sikki mu. waaw del wax sikkimu. sikkimu. xam nga luy sikkimu. déedéet. maanaam tiim la rek bañ laa ba benn yoon nga def dara. noonu la ko def da koo sikkimu. ah ma wuti pexe sikki mu waat na ko ah, ah, ah, laaw boobu da bu dalaatee waaw mbëru mbëru ñoom omaro bi ñu ngi koy dóor muy daw rek ah na taxaw bëre waay mbëru ñoom omaro bi ñu ngi koy dóor rek mbëru ñoom pap bi na taxaw bëre mbëru waa mbëru waa kub kub pap kub kub waaw kii mooy mbërëm pap parfum xale bu baax ba kii mooy mbërëm faramaareen faramaareen mooy mbërëm même yow faramaareen mooy sa mbër waaw waaw atta na lu xew ka doon dóor moo dem ardo waaw gàccee dóor gàccee daan faj na ko déedéet ki doon dóor moo dem ardo lu ah, tax ki doon dóore moom la ñu yóbbu ardo waaw lu xaw naagu ci xeex bi heure boo naagoo ci xeex ñu weccenti kooku mën nañ laa doo ku bu yàq sa bëre nga ne les spécialistes keroog dafa ala daw me dafa ala sénégalaise ndax ñu fa daje xam-xam a fay génn waxtaan wu neex waaw kii kana Alioune Seye Junior Alioune Seye Junior ay père Balla waay tey les spécialistes mais mais ana ana borom ganaaru wolof yi waaw ah, mu ngi foofu heure boo ñëwee reer ah ma ne heure boo ñëwee reer nu mu naa la père Balla waaw waa yëmbal ñëw nañu ak doole de fowuñu folluwuñu ñëw na ñoog doole de. waaw. ndeysaan yàlla mooy maye. dama xam ni moom moo fa mujjee juddu. ah. ma ne yàlla mooy maye. waaw waaw. moom moo fa mujjee juddu. président Cheikh Niang. mujjee faa nekk mbër président Cheikh Niang bu Lansar. président mi ngi noonu président Cheikh Niang. di nit ku yàlla baaxal. président googu. di nit koo xamante ni ci ay valeur rek lay dox. ku mel noonu nag su ñëwee fii. waxtaan ak moom day solo président nga noonu waa xoolal lii. xoolal ma Diop de. xoolal stade bi ni ah, waa këram nañ ko lii amul ci benn stade Sénégal. waa nañ ko. lii Ndakaaru arène nationale ñoom ñoo ko am. waa këram topp nañ lii kenn amu ko fi ku dul waa làmb. dix combats la def dix victoire. lii mobilisation bi booy Diop moo ko def. dëkk yëmbal la jógee. jógee yëmbal ànd ak xale yëmbal yi ñu ko indi ko. xam nga ni lii doy na war lool. Malika la jógee. stade baa ngi noonu Malika Kër Massar Banxaas. benn baraag la jógee. ndax xamoon nga dëkk bu ñuy wax Banxaas. Banxaas déedéet. Banxaas mooy buun ji nekk ci kër ci Mali jee ci ginnaaw buun. ah mooy seen dëkk yéen. ah du suñu dëkk de man dëkkuma foofu de. man Pikine laa dëkk. kese. ah Pikine tout waaye boo xaajee Ndakaaru sama benn tànkang ci lébu gi. père Pallel kañ nga nekk lébu. ah lébu kenn ëppale wu ma si guddi Diop ak Témour Diop guddi Diop dama cee bokk waaw. cosaanu vrai vrai sant lébu lan la vrai sant lébu yi. vrai ah, sant yi jóob de ci la bokk. Diop waaw. Ndoy de ci la bokk. waaw. Ndiir de ci la bokk. Ndiir waaw. faale ni a ah, combat ba ña xeex. ña xeex ca combat ba. ay ay eh, rëpp nga eh, rëpp nga caataan